yéen gis ko nii mu jugee département bu Podor Tchoube euh, Laawa foofu. 22 euh, nag ñoo ci ñàkk seen bakkan sur place euh, beneen 23e bi mi ngi ñàkkee bakkanam ci hôpital Amadou Sakhir mbay mu nekk accident bu méttee méttee métti <coughs> ngeen gis ko nii fii ci boo génnee Louga rek jëm Saint-Louis foofu. <coughs> voilà mi ngi noonu bus bii la. bus bi moo def accident bi 23 nag ñoo ci ñàkk seen bakkan 22 ñoo ci dee sur le coup 23e bi hôpital Amadou saxiir mbay la daal di ñàkkee li nga xamante ni moom mooy bakkanam ah, bari na tamit ay blessé mu nekk ah, accident bu metti biñ fi ñëwee rek am na ci kenn koo xamante ni bokk na ci biñ ko laajee <laughs> ah, nee nañu moom dafa jeg si yàgg rek gis chauffeur bi di dawal oto bi dem gauche droite gauche droite ba daal di xalanku mu nekk accident boo xam ni metti na torop torop torop torop foo ko nattu rek weesu na fa accident bu metti la <clears throat> ngeen gis ni 23 ñoo ci ñàkk seen bakkan bëri na aussi ay ay ay ay ay ay blessé 23 yi nag ki ñu jox xibaar mooy docteur bi moom moo ñu ko xamal léegi donc mi ngi di dem hôpital ngir situation bi mu hôpital euh, mu mu accident bu metti autorité yi euh, tel gouverneur tel na préfet tel sapeur aussi gis nañ vraiment euh, taxaw nañ ci am bu am gendarmerie aussi gis nañ gis <coughs> aussi population bi vraiment accident bo metti na lool rek donc <coughs> loolu moo fi xew euh, <coughs> ñi leen di ñaanal ñi ci ñàkk seen bakkan yàlla yërëm leen xare leen àjjana tàbbi leen ci àjjana yi gën a kawe bus bi mi ngi noonu <coughs> gis ngeen ko bus bi moo def euh, accident bi 23 ñoo ci ñàkk seen bakkan bari na nag ay blessé jamono jii ñuy wax ak yéen bari na ay blessé bari na ay blessé trop <coughs> donc bëri na ay blessé sapeur nag fii dafa bëri woon dret gis ngeen nettoyé nañ ko lépp ba mu ba mu ba mu ba mu set donc bus bii la moo def accident bi <coughs> ngeen gis ko nii mu nekk lu metti mu nekk accident boo xam ni metti na trop donc yéen a ngi fii ci Jacob Post <coughs> mu nekk xibaar boo xam ni moom leen leen xëyee di xibaar bu tiis xibaar bu metti xibaar boo xam ni foo ko <coughs> natt ci mètre rek foo ko foo ko natt rek weesu na fa <coughs> donc voilà loolu moo fi xew <coughs> donc foo ko natt rek weesu na fa metti na lool metti na trop metti na trop d'accord donc loolu moo fi xewoon eh,